Eh, nañ ko laaj rek moom dina tontu <laughs> Pape xam nga yow da laaj sa laaj ma xaw ko jumbo rek eh, amul nañ ko bàyyi mu mais on va voir moi je demande la question oui composé de combien comment on va voir ah, allez Malal <laughs> euh, inspecteur bi muy wax dafa wax dafay baax ci ñuy euh, xool lan mooy priorité le sens de la priorité pour man tey prioritairement dañu war a wéy ci di jàngat feebar bi di wut lu ko saafara ba pare daf ciy bokk li ñu wàññi suñuy mouvement ubbi école yokk mouvement la parce que xale yi dañuy dem dañuy ñibbisi. voilà waxal ci kaw gaa ñu ne dégg. xale yi dañuy dem dañuy dem dañuy ñibbisi. voilà bu ñu demee ñibbisi ñu thermo leen flash tey xool seen température wala xool leen ñu ne feebaru feebaru ñu ñu ñibbi kër ga añi wala ñu ñibbi kër ba reeri fanaan fa yeewu demaat seen bàjjan seen yumpaañ mën na fa indi corona ñu yóbbu ko école et ça se propage donc amuñu lenn lu ñuy wax ni que école am na possibilité pour xeex loolu war a ba ba mu war a am sañ-sañu ubbi mois de juin warul ubbi mois de juin lu tax parce que mois de juin également ba juillet presque nawet la am na ay école yoo xamante ne dañuy senn am na école yoo xamante ne dañuy taa mm-hmm. te su boobaa paludisme dafay ñëwaale. parce que mhm. période de palu la. Mhm. nit sax dafay sëqat ci kër gi ñu ne ñu ne ñu ne xëy na nit mën na am palu ñu jaawale ko ak corona parce que su mhm. boobaa nit ñi dañuy jaxasoo parce que ñëpp ci situation psychose la ñu nekk. mais li ma bëgg a laaj mooy fi ma doon xaar man véritablement euh, les agents de l'éducation nationale mooy pendant ñu ngi dund instant bii nii njombe c'est-à-dire yan réflexion ngeen di poser wala yan action ngeen di poser yi nga xamante ne ça permet d'enseigner les enfants à la maison parce que en fait pour man waroon nañ am ay prospection waroon nañ réfléchir bu situation ñëwee war nañu permettre instant bii ni ñu mun a comprendre que effectivement war nañuy xalaat yan solution la ñuy am bu ñu munul def lii naka la ñuy defee leneen. luy remplacer loolu pour mun a yóbbu xale yi ci examen correctement. alors interpellation euh, euh, tey ñoo dem euh, ci docteur après on on vient à vous. Mm-hmm. ni ma comité scientifique Pape Djibril bi mu évoqué c' est très important comme on dit on fait beaucoup de choses à l'image de la France. Mm-hmm. c'est un comité de onze ici est-ce qu'on a un comité et si oui ñan ñoo ci nekk. bon il comité scientifique mais il faut qu'on soit très clair. Mm-hmm. man mm -hmm. je ne suis pas venu parler au nom du comité je suis venu parler en tant que membre de la communauté scientifique. Bien il faut qu'on soit très bien parce que j'ai été un peu interpellé comme si sax y a des décisions yoo xam ne sa oh. émane de de benn groupuscule bu ma bokk wala yu mel noonu d'ailleurs ci yenn yi nga xam ne ñenn ñu ñenn ñu wax nañ ko loolu il faut que mu leer alors euh, dama am ay euh, quelques points rek yoo xam ne dama ci indi ay quelques éléments de réponse par rapport ak élémentaire Euh, inspecteur bi nee na Europe élémentaire bi lañ commencé ñun ñu commencé lycée bi loolu aussi c'est lié pour man euh, à une spécificité boo xam ne sur le plan social boo xoolee en Europe li gën a tax sax ñu élément euh, élémentaire bi c'est parce que nit ñi bu seen doom jàngul duñ man dem liggéey. Mm-hmm, mm-hmm. fii booy liggéey mën nga bàyyi sa doom bàyyi ko ci kër gi. Mm-hmm. nit ñuy gérer la ko nga dem foofu tant que xale yi demuñu. mag ñi duñ dem. kooku c'est c'est un calcul alors que fii pratiquement je pense que ni considération boobu noonu peut-être euh, bon amuñu amuñu problème boobu noonu alors lépp pic depuis sànq maa ngi dégg ñu ne cas yi mu ngi yokk àgguñ ci pic bi. mais pic mooy lan. pic bi mooy parce que courbe bi en cloche la cest à dañuy day day jóge ci suuf di yéeg di yéeg ba benn instant. mooy fi muy jaxasoo ñu gis ne fa foofu nag moom fii takkarnaase na normalement bu fi jógee. dafa wàcc wàcc rek on ne peut pas avoir comme actuellement li nga xam ne moom la ñu observé en France observé ko en Espagne il y a moins de morts et cetera. il mhm. a moins de cas mais xam nga Sénégal depuis euh, semaine bi yëpp ñu ngi wax cas yi mu ngi yokk àggaguñ ci pic bi et cetera ma ne leen euh, bu ñu juum ci benn affaire gis nga pic bi mënatuñu xam ndax xam àgg nañ ci pic bi wala dañuy jëm ci pic bi. Mhm. wala jóge nañ ci pic bi di wàcc xam nga lu tax. parce que dès le départ defuñu dépistage bi ñu def semaine bii passée. au oh, dé mais oh, pic oh. pic bi suñ ci eggee kan moo ñu koy yëgal ak nan lañ koy yëgee. non loolu laa lay expliqué dama la dama la bëgg a xamal ne la pic bi pour man pic bi xam kañ la dina jafe parce que bu fekkonte ne dès le départ. Mm-hmm. dañu commencé ak ay 1000 tests. Mm-hmm. di gis 10 mm-hmm. pour cent. ba mu yàgg ñuy gis 8 pour cent. ba mu yàgg ñuy gis 7 pour cent. dañuy xam ne yéegoon nañu dañuy wàcc. wala ñu am 3 pour cent. di jëm 6 pour cent. Mm-hmm. jëm 10 pour cent jëm vingt pour cent xam nañu ñu ngi jëm ci pic bi. Mm-hmm. mais ñu commencé ci benn test boo xam ne test bu ndaw lañ doon jël. Mm-hmm. naturellement mënoo def 20 tests di am 30 positifs c'est pas possible. li ñu doon def c'était proportionnel donc instant bii nii c'est vrai que cas yi bëri nañu. mais si ça se trouve si ça se trouve xëy na y a 3 semaines. bu ñu defoon nombre de test yu yu bëree nii xëy na sax doon nañu am cas yu gën a bëree nii mm-hmm. auquel cas instant bi nii ñu ngi ci ñu ngi ci pente descendante bi mm-hmm. loolu c'est hyper important donc man damay dégg même ay spécialistes di wax pic et cetera àggaguñ ci pic bi non boo yokkee nombre de tests bi c'est une logique mathématique soo yokkoo nombre de tests bi da ngay am nombre de positifs yu gën a bëri donc man terme pic boobu man je je je relativise mm-hmm. alors par rapport à la mm. li ma si xalaat pour man mooy li buuba wax ah c'est-à-dire que am na benn instant boo xam ne day am benn instinct de survie euh, su ma nee survie gars yi nee nañu wolof même réalisateur nee na wolof parce que li nga ah. am solo. ah d' accord jox ñu wolof bi ma wax wolof ah. d' accord ok <laughs> non buuba li mu wax dafa am solo. cest dire gis nga dinañ toll benn instant boo xam ne nit ñi dañuy bëgg a dund su ma nee bëgg a dund nekkul bañ a dee ah parce que problème bi mooy est-ce que. mën nañu dundaat nii ñuy dundee nii six mois ci kanam. loolu dina metti par contre est-ce que virus bi na fi nekkaat six mois man gëm naa ni mën na fi nekkaat sax lu ëpp six mois. donc nañ toll benn instant boo xam ne il va falloir n'importe comment xool yan stratégie la ñuy teg pour jéem a reprendre la vie jël nag ay mesures yoo xam parce que man j'estime que Sénégal bu ñu jógee fii nii beneen Sénégal mooy am cest dire que habitude raxas sa ay loxo foo toll loolu nit ñi waruñu ko bàyyi. Mhm. saafonte bi ñu doon saafonte tout le temps loolu dañ koy bàyyi. masque yi nii pour man war nañ ko mën a porter fii ba décembre. Mhm. nit ñi liggéey mais bu ñuy liggéey ñu ñu sol masque yi mais nit ñi situation bi nii est-ce que mën na continuer fii ak 6 mois ci kanam loolu je pense que loolu euh, du nekkul loo xamante ni pour man c'est souhaitable nit ñi mënuñu ko mënuñu ko sax munuñu ko dékku d'ailleurs la preuve. léegi lañ boobu ku ci war a tontu. Ah, donc loolu nag euh, ay décision la yoo xamante ne nii. c'est des décisions qui, qui viennent d'en haut. Avec, avec, avec, avec effectivement l'avis du comité scientifique, de la communauté scientifique. su ma waxee communauté scientifique c'est pour rejoindre inspecteur li mu wax parce que affaire bi il faut ñu jël ko euh, de manière vraiment multidimensionnelle intégrée yëpp. et à ce titre man j'habite à la cité des enseignants du supérieur ñu créé fa benn comité scientifique bu tudd gri Covid 19 ARCES. boo xam ne ay historien ay économiste mm-hmm. mm-hmm. mais pondre nañu benn benn benn benn rapport boo xam ne mu ngi ci soleil ba ci dem mm-hmm. on a pris en en compte pratiquement tous les aspects yi nga xamante ne covid bi jël na ko c'est pas et c'est pas forcément des aspects yoo xam ne c'est su le plan médical am na yeneen yeneen yeneen euh, enjeux yoo xamante ne nii euh, mu ngi ci biir donc euh, xaw ma ndax xam j'ai j'ai répondu à la question mais buuba li mu wax noonu la demee cest à école bi n'importe comment dañ toll benn instant boo xam ni dañ koy tijji léegi nag est-ce que dañ ko tijji parce que dañ jëm ci pic wala jëmuñu ci pic mm-hmm. parce que logiquement bi ñuy tëj école yi on avait à peine une vingtaine de cas on avait même de communautaire mm-hmm. ci lañ tëj école yi maintenant que cas yi gën a bëri cas communautaire yi am mm-hmm. ñu jëm nag foo xamante ne nii depuis deux mois te loolu après peut-être am na benn élément boo xam ne dañ ci waxtaan mais ça fait deux mois que le virus est là ñu tëju xamuñu kañ la fiy jógee man gëm naa ni fii ba décembre virus bu ngi fi est-ce que dañuy continuer dund nii loolu day doon loo xamante loolu mooy deuxième partie émission bi pour ne pas anticiper deuxième partie émission bi mooy la question essentielle que qu'il pose parce que contrairement ñun on est un pays tropical mhm. am na fi paludisme am na fi ah. am na fi ay yeneen feebar loolu loolu aussi ne dañuy reprendre deux juin mais bu ñu ko reprendre deux juin fan la ñu jëm mhm. loolu tam dafa doon xal euh, am oui yaa balaa may ñëw ci yow juste rek une petite question peut-être ma bàyyi la nga réfléchir si une minute ah. c'est pour dire aussi xale yi sax dañuy seetaan émission bi alors y a une petite fille qui s'appelle maman Tening Diedhiou am na xale bu jigéen doguma la xale bu jigéen waaw waaw je sais je sais nee na nañu wax olof parce que ñoom émission ah, je sais voilà am na xale bu jigéen xale xale xale tout tànk la macha allah mi ngi seetaan émission bi ce la nekk su ma jumul CE1 ñun troisième la ñuy wax primaire frère mi ngi CM2 mi ngi tudd Mohamed mi ngi mi ngi quatrième alors voilà quatrième mooy C1. la frère bi nekk Mohamed ah. non il s'appelle Mohamed Daouda Diédhiou nee na moom dafa tiit pour frère bi mu dégg ni classe d'examen yi la ñuy ubbi ñu jàng ji cm la nekk ndax bu demee maître bi du ko yóbbu tableau crédit beneen xale téye ko maître bi joxaat ko beneen xale mooy li nga doon bañ léegi ci stylo bi doon mais Abdoulaye nga nga donc mu ne moom donc elle a peur quatrième la xale bu jigéen bi nekk elle demande ndax frère bi ne CM2 Mohamed da bu delluwaatee école dans ces condition la ndax craie yi ñuy paasante maître bi naan diw au tableau diw au tableau ko euh, indil. gàllankoor non non foofu foofu dama la. mu wuyu rek ma ñëw ci yow. foofu gis nga li mu wax noonu. Ah. man débat boobu dafa posé bu sama kër. Ah, ah. parce que man suma doom. Uh-huh. classe d'examen lay am naa sama doom bu nekk bu war buy def CM2. suma jabar. Uh-huh. c'est un médecin. Uh-huh. professeur la comme man. mais <laughs> quelque part dana ma d'accordul xale bi jàng ma ne ko mais. man li ma d'accord mooy bu ñu décidé le deux juin dafa war a jàngi parce que pour man. Uh-huh. n'importe comment. Uh-huh. n'importe comment. Uh-huh. faaw benn instant. il faut ñu affronter virus bi dund ak moom. Ah. mënut a ñàkk maintenant jël ay dispositions yoo xamante ne dispositions yu yu yu particulières loo xam ne dañ koy définir le moment venu mais aussi mënuñu toog mënuñu toog nii. jëmale fii ba décembre. kenn du jàngi. kenn état bi du jël benn benn mesure yeneen dëkk yi di reprendre te yeneen dëkk yi cas bi ñuy cas yi nekk. moo gën a catastrophique professeur anticipé na ba répondre donc de manière euh, tranchée ci ci ci deuxième deuxième thème bi apprendre à vivre avec le virus nee na d'emblée waaw. alors il y a ma ñëw ci yow balaa may dellu ci waat